asalaamaaleykum wa rahmatullah téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkkooti ci yéen ci safoo gi ak faale gi ak bàyyi xel gi ngeen ñuy bàyyi xel amuñu seen fay fu ngeen mën a nekk rek yàlla na leen yàlla defal jàmm defal leen mucc xéwal barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey nag dama fas yéenee dalal koo xam ne nii yaakaar naa ne xale la macha allah ci at waaye wax dëgg yàlla ah jëf ji muy jëf jëf kilifa la mu kàllaf la muy jamaïcain yaa ngi dégg di doomu Sénégambia parce que noonu la ko yàlla bindee loolu la yàlla dogal tey ñu fas yéene waxtaan ak moom li waral waxtaan wi nag ku ne xam na ne làmb ji fi mu nekk nii ah ñu ngi wax day ubbi le premier mars te moom daaw am na lu mu defoon Sénégal fii ci diggante Franc ak bé ak ki nga xam ne moom mooy euh, Bébé Saloum yaa ngi dégg mu yëngaloon arène nationale ñu ne déet na waay xoyantaan bàyyi mu ñoon ca Gambie moom it la woon mu nekkoon coow lu rëy rëy ren nag mu entamé woon saison bëgg a commencé defaat loolu ñu nekk ci taxawal ay combat ba yàlla def ku ne xam na ne ca France ca Gambie moo tëgg France ak Leket Baara waaye yàlla dogal président ba jël ay mesures ne à de le 8 lépp lu ndaje public dootul am te mu waroon ko tëgg le mars tey nag ñu fas yéene dalal ko waxtaan ak moom ci loolu nu mu ko dundee boobu nouvelle ak itam am na yeneen yu ñu gis yoo xam ne ay kilifa yu ko dalal ca Banjul la lépp fas nañ ci yéene waxtaan ak moom jamaïcain moo frère moo ami moo frère ndax loolu daa jiitu lépp maag yow moom sama rakk nga sama xarit nga maa lay bëgg di la ziar. mag ji maa lay fay di la ziar di la nuyu bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay mhm. avant tout dañuy sant yàlla bu baax a baax di julli si Seydina Mohamed di sant suñu ñaari waajur mhm. di nuyu suñu sëriñ Mawlana Cheikh Ibrahim di nuyu sama papa sama turandoor Mamadul Mahdi Ibrahim doomam Cheikh Baye Mahdi di nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp di ziar Cheikh Mahi xalifa général Medina Baye yàlla wéral cëram bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam a kanam si barke Seydina am yàlla oyofal yan bi ci kawam di nuyu waa Touba. Mhm. waa Tivaouane Thiénaba Ndiassane euh, Cambérène Ngor Yoff Wakam mhm. kilifa diine yëpp waa Médina Gounass famille omarienne bàyyiwuñ kenn ba ci suñ mbokk chrétien ñëpp ñu ngi leen di nuyu di mhm. sàkku si ñoom ñaan di ñaanal ñëpp di nuyu tamit waa Gambia bi ñu jógee di leen di ñaanal jàmm xew li ko dalee ci président ba suuf di ñëw fii tamit di nuyu président Macky Sall gouvernement ak opposition yëpp di ñaan li nga xam ne nii moo lëmbee àdduna di coronavirus yàlla jëlee ko fekk jàmm. bañ continuer waat suñuy activité di nuyu njabootu làmb sportif yi ci nekk yëpp. ñu ko dalee ci ministère bi président CNC lutteurs yi ma kenn képp kuy dundu làmb rek maa ngi lay ziar bu baax di leen nuyu di nuyu kull kuy promoteur nag ci réew mi. am na solo kooku mooy Jamay Gueye macha allah comme ni ma leen ko waxee sànq mais jam bu ñu xoolee tey ñu ngi ci mois de février parce que dee na sax bientôt ñu dugg mois de mars muy un yoo xam ne làmb amul ci Sénégal ak li ko wër. ci biir réew mi bokk làmb amu fi li ko waraloon mooy coronavirus yow nga nekk bayeeri làmb maanaam mooy promoteur buy investir sa xaalis si làmb mbir moom bi mu ñëwee diiran boobu ba tey jamaïcain nu mu dunde mbir mi ak ci lu mu nekkoon waaw Babacar dañuy kontaan beneen yoon nga dalal ñu fii Equivox. waaw xam na bi nga fi ñëwee ba tey tey mooy suñ première. waaw bien sûr waaw yow nag li ñuy wax rek da ngaa gëm sa bopp. ba mhm. pare li ñu naan ku yokkul yaa wàññi. dëgg la te bi nga ñëwee ci mbir mi ba léegi yaa ngi yokk. Mhm. gis nañ liggéey bi ngay liggéey fi nga koy teg. ñu lay ñaanal yàlla kàttanal la dooleel la. Mhm. nga laal nag dafa am solo. ñu jëm mois de mars bientôt. su ma juumul mois de mars la lamb gëj a am. fii ci réew mi bien sûr ci Assane Ndiaye ku tëggoon. Ah, Assane Ndiaye moo tëggoon. comme li nga wax nag nan lañ dundee mbir mi ñun nag dañuy sant yàlla bu baax a baax. ndax boo xoolee. deux mille dix neuf. deux mille vingt combat yi gën a réussir ñoo ko organisé. ñu la quinze décembre ci Gambie bi ñu ñëwee foofu noonu Sénégal fii le huit mars. muy événement boo xam ne daaw. mooy événement bi gën a rëy fii ci làmp Franc Bébé Saloum. waaw loolu nag gannaaw bi mu amee ba weesu si lañ arrêté. ji làmb ji. am na ay combat yoo xam ne ñu ngi woon suñu kanam waroon a ñëw yàlla def mbas mi ñëw ñu arrêté activité yi boobu léegi làmb amul ba ñuy xalaat ne làmb dina ubbi le premier mars ñu ngi ñaan rek su fekkee lu gën ci njabootu làmb la gën ci promoteurs yi gën ci mbër yi yàlla na ko yàlla yombal bañ dugg seeg bisimilahi rahmaani rahim génn seeg alhamdulilahi rabbil alamin ndax suñu borom moom yàlla du tëj buntu tëj palanteer lu mu la indil rek dina la indil koy saafara saafara ñoo def ñu commencé tëgg làmb ba léegi mosuñu dégg làmb huis clos ren buñ ne làmb day tijji ci huis ñu ngi ñaan ah képp ku ci tëgg ci huis boobu noonu na la gënal bépp làmb boo mos a tëgg ci àdduna waaw loolu la ñuy ñaanal ñëpp am na solo léegi balaa may dem ci huis clos beeg li nga nar a def fi Gambia daaw da nga tëgg combat Sénégal ñaari komba sax laay wax senegal ak Gambia mu bëri coow bàyyi ma njoon xoyantaan coow la ca am noo ko gàddoo ci xale ak foo ak coow ndax mettiwu kon ci yow bi ci des mooy bébé Saloum ak Franc tamit amoon na coow su euh, sa diggante ak beneen camp bi yaa ngi dégg loolu yëpp nekkoon ay parce que dañ doon jàppoon na xëy na nga far fenn ak yooyu yooyu daaw noo ko noo ko gérer en tant que jeune. Hmm. waaw ñun yàlla dimbale nañu Babacar bi ñu ñëw ci làmb xam nañ ne milieu bi ñu nekk milieu coow la. Hmm. yàgg nañ ci avant ñuy nekk promoteur ñun xëyuñ xëy rek yor suñu xaaj ñoom dañ nekk promoteur làmb dañ ci jaar ci ay beneen yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ah duñ ne ñu ci jaar bëriwul waaye ñun de bokk nañ ci ndaw yoo xam ni buntu boo fëgg ci làmb mun nañ la wax ne jaar nañ fi buy lu mu ndaw ndaw dund nañ ko bi ñëw tamit nekk di opté doon promoteur xam ne làmb mbiri coow la te ñun avant nekk promoteur làmb coow yi ci bëri <laughs> ñun ñoo ko doon <laughs> ci rajo yi ba mu saf saf jaay combat te ñooy bokk reer ñooy ànd ñooy defante lépp seq jàmm kenn ku ci nekk da doon demalante ak sa morom bu hmm. loo xam dañ ko doon def mu rafet hmm. kon ñun bu ñu ci làmb bépp coow bu fi nekk rek mun nañ ko dékku waaye nag na nekk coow boo xam ne yow nit mun na la sent sedd ci gaalu xaj waaye bu mu la ci fekk ngay lekk ak lu mën a xew na nga jiital sa dignité ak sa ngor fulla ak fayda waaw loolu du ci am solo la ndax comme li may wax rek mbër boo koy jox avance du calcul du xool yooyu noonu yépp xaalis bi lay gis bu demee ba jël avance bi nag lekk ko ba mu resi lay door a xalaat kii fii la far kii fii la dëkk ñun dépassé nañ fu ñuy fare sunu liggéey ndax sunu liggéey ak lu mën a xew li ñu ci am dañ ci bëgg a teral suñuy waajur teral si suñu bopp teral si suñuy mbokk te nit say mbokk wala say waajur lépp loo leen di teralee war na lew comme ci combat franc bébé Saloum mi wax beneen kaabi yàlla sedd na ne man bébé Saloum moom ma dugal ci combat bi bëggoon naa ko doxoon ko sottiwul année boobu ma bàyyi ko nekk sama yoon dem tëgg fi Gambie bàyyi ma doon xoyantaan gis nga làmb ni mu ne taxawalaat beneen combat Gambie pour continuer waat la sama lancé Gambie moom moo wane ma mbër mi nekk parcelle te jox leen ma avance am. waaw ah, loolu indi combat. yaa ngi dégg. Hmm. juboo moom mu jël avance lu mat un mois ma franc juboo te franc mbër la may promoteur même bu dëkkee parcelle su liggéey day yóbbu seen kër. Hmm. man su ma liggéey sama kër laa yóbbu samay mbokk laa bëgg a taral. musuma bëreel gratuite. du ma bëreel gratuite te dama koy fay kon tamit lay kay lii tax mu am ndam moo koy may boppam moo koy liggéey. ok man li li li ma tal mooy ni sama ràmb réussir te ñëpp xam nañ ne képp ku nekk promoteur laa la wax soo tëggee làmb di nga tal leneen lu naan da ngay jàppale mbër. ok sa bés ngay xool nu mu réussir. mu réussir man sama bés laa doon sama bés laa doon pour nu bés bi réussir te ñëpp xam nañ ne Franc Bébé Saloum rek soo leen tëggee seetaan leen li arène li am arène nationale bi du fa am. waaye bu ñu naan Franc Bébé Saloum arène nationale bi dem nañ ba tëj rouge bi ba ñu ñi yëg ci kaw. promoteur bi moo liggéey lu bisam lu lu lu tax bis bi réussir daal liggéey ci communication liggéey ci côté yépp animation jël ay mbayang lu moom moo ngoom indi leen pour bëree dóor communiquer ci ñaata weer ñu nekk si di jaabante pour bis bi réussir loolu moo réussir bis ñun loolu lañ taloon taluñu faral kii wala talal faranke ñoom ñaar sport la. ci réew mii lay des ku daan bébé rek de sama tooñ ko ma ne ko bi ngay jël xaalis bi xam nga ne parcel laa dëkk ndax sama kër nga ñëw jël seeku hmm. biir inte kon xam nga ne parcelle laa dëkk lu tax sóoraale woo yooyu yëpp nga ne ba làmb ji den bëree moo si des nga ne kii parcelle la dëkk yooyu suñu bëggee làmb ji dox nañu sóoraale loolu réew mi ñu ñëpp ñoo ko bokk kenn mënu fi réer sa morom kenn mënu fi nëbbatu sa morom tey man li ma bokk ak dëkk ak bébé Saloum est-ce que dëkk na ko bébé Saloum bu méttee ñooy bokk Saloum ñibbi. ay <laughs> moom samay grand ay xarit lañ. Ah, ñooy ànd. kon moom bu fekkee côté boobu lay xool sax li ma lii ak moom. moo jiitu li ma lii ak Franc ok Franc parcelle mu dëkk ak fi ma dëkk ci parcelle sore na. gaa bi ñu bokkee parrain sax sore nañ affaire làmb ma mu may dégg man musuma mbër may sama liggéey ma tëggal mbër combat di la jàppale ci. pour nga daan sama non bu ma nar def noonu noonu làmb ji may liggéey yàlla bu ma si tekk am na solo jam loolu leer na léegi nag dañuy dem Gambia Gambia euh, ku ne xam ne def nga fa daa événement ren nga dekkalewaat dàbbalewaat ko indi leket ak France ak euh, yeneen combat yu fa teg ñu xëy a xëy làmb ji ah mu ubbi Sénégal mais ubbi bi huis clos lay war a doon yow nga commencé woon war a dem Gambie ba jàpp sa date 28 mars nga xëy xëy ñu ne Adama Barrow président ba nee na le 8 mars moom buñ ca yeggee lépp lu ndaje public dañ koy dakkal comme ni ñu ko defee Sénégal loolu yow bi nga ko déggee en tant que jeune boo xam ne yëkkati nga sa alal jox ko ay bër taxawal ay journée noo ko dundee ak euh, mbir moomu. waaw lu metti ndax ñun ay ndaw lañ dañ toll ci góorgóorlu lamb ji ñu taxawal Gambie nii budget lamb bu toll noonu musul am Gambie. Hmm. waaw lu tax ñu def ko mooy dañ fa yóbbu événement bàyyi ma ñoon xoyantaan gis nga combat bi nu mu mujj demee gambien yi génn bëgg lamb ak fa lamb ji nu mu mujjee mhm. mu am benn combat boo xam ne képp ku promoteur foofu yaa ngi ko doon pour taxawal ko ay at mhm. ñaari mbër yi mhm. kenn mënu ko tëgg wala boog da ngay dem ba ci biir problème kase yàqu ñun bi ñu ñëwee lamb ji nu mu demee ñu ne combat bi moo fi nekk réew mi yépp maa ngi naan ah su fekkee ñaari mbër bëggante nañ problème kase rek man dinaa ko taxawal gars yi na ma combat bu iskan ma ne leen naa ko taxawal làmb ji jeex ma proposé leen kase yoo xam ne ñoom ñëpp kenn musu kenn musu ko fa bëre ñu jël combat bi taxawal ko bi ñu ko taxawalee comme ñoom seen stade bi ñuy tëggee làmb stade bi 45000 places la mhm. ma ne léegi amul problème damay créé benn challenge opération close the stadium mooy ñu fexe ba làmb Gambie tëj stade bi 45000 mhm. places nañ ko feesal léegi au lieu que combat boobu rek duñ ci yem mhm. dañuy jëlaat ay grand combat yoo xam ne ñoo xam ne ñëpp ay at a ngi nii kenn mësul loo ne bëri loo spécial ay grand combat la ñu bëri ñu jël yooyu yëpp journée yooyu yëpp couplé mu nekk benn journée nga xam ne mhm. stade bi moom lu mën a xew day fees day fees moo tax ñu taxawal Bédine ba Boy Balla mhm. Bébé Xarañ amical mhm. Reug Lion Noir Malien Ama Balde bu Gambie yooyu yëpp ñu taxawal muy cinq combat yoo xam ne bu ci nekk bu la neexee la six bu ci nekk nga def ko grand combat boppam loolu lañ jëloon def ko benn pour le 28 non daaw la woon na 14. ah daaw lañ ko. daaw lañ ko bëggoon def juillet. far lamb waaw corona bi ñëw ñu toog toog ba ren ba ñu ne ubbi nañ activité yi. ñu profité jàpp la 28 mars ndax mars moom ñëpp xam nañ ne su fekkee moom ma ko tamit am naa si cër. <laughs> macha allah waaw. Uh-huh. maa ngi léegi garaaw li ma defoon Sénégal. Uh-huh. le 8 mars maa fa tëggoon sar sargal jigéen journée mondiale de la femme. Uh-huh. ren damay tëggaat la 7 mars ndax le 7 mars moo tombé ak dimanche. ok. léegi la 7 mars bi moom moo doon sama mébét bi ma demee stade bi fekk Gambie am max ñu ne stade bi mënuñ ko joxe fekk max bi fu paasewul Gambie ñu ngi war a fubal la 25 ma lay garaawul la 25 la 28 3 jours après max bi rek man dama ciy tëgg ndax combat bi maa ngi doon sóoraale waat lii yëpp bi ñu defee def signature ba commencé publicité si lañ déggaat ne président bi le 8 mars day arrêté activité yi comme le 8 mars day arrêté activité yi léegi ñun lan lañu war a def mooy combat bi métti na yàgg na jël sa xaalis teg ko benn place lu bëgg a mat ñaari at mm-hmm. mënoo si jot xamoo foo jëm kenn jàppalewu la fexe noo ci génnee mm-hmm. may léegi naa wàccee combat bi def ko la set comme le huit lay tëj la set ma tëgg ko mm-hmm. yaa ne deux semaines promotion may ne amul problème lamb ji jaay na boppam loo ci am genn wàll kasaara moo gën kasaara nañ nañ ko def la set léegi nag bi ñu demee demande stade bi amuñu ko comme événement boobu xajul feneen. ci beneen stade bu dul stade boobu. Mm-hmm. ndax combat yi ñu taxawaloon stade boobu rek du ko attan. Mm-hmm. léegi ñu am beneen stade ñuy Serekunda comme saaru stade Iba Mar Diop bu mag bi. Mm-hmm. wala comme saaru stade Amadou Bari yi doon la mel stade Bari yi nii quoi. ok léegi nag bi ñu amee boobu ñu ne léegi nañ indi idée comme dañ taxawaloon ay grand combat kese te yépp xajuñ ci stade boobu nañ génnee combat bu mag bi. ak beneen. lañ génne ci combat yi mag yi ñaar. ñaari grand combat ñu génne leen à côté. muy leket France. Balla Junior Ama Sène bu Gambie muy Balla Gaye bu Gambie ak Ama Sène. ak Ama Sène bu Gambie waaye. waaw derbi la <laughs> derbi ñoom ñaar sax kenn ku ci nekk nee na day teg toomaam. waaw turandóom. waaw turandóoram. ku daan jël ku da nee na kenn ku ci nekk day teg turandóoram ñoom ñaar. Hmm. mais comme combat boobu combat derbi la. Hmm. ma taxaw léegi boobu ma génne ko ak leket France yi si des yëpp nag. Hmm. ñu fas yéene ko tëgg la 7 mars. ok muy. li ñu defoon fii daaw sargal jigéen ñu defaat ko fële ca Gambie. Hmm. le set mars nag ñoom xam nañ ne moom le 8 mars benn waaye le 8. Hmm. ren lundi la tombeek ñu ne ñun nañ ko célébrer. ok euh, si si sa dimanche bi la set bi. ok kan nañ koy jox kuñ ciy jiital mooy Roxi Malick Lo maire of Banjul. ok muy jigéen ju man góor xam nga ñu jox ko grand combat. grand combat mag bi muy building boy Balla. ok ba ba xarañ amical ñu tuddee ko suñu xarit. doomu senegal boo xam ne dem Gambie. Mhm. wane boppam jàpp na Sénégal ak Gambie benn muy Idrissa Ndiaye. Mhm. surtout ak Daoud moom lañ tuddee euh, bébé xarañ amical. beneen bi ci topp ñu jox ko Pape Doumbia directeur Thiès Prestige. Mhm. bi ci topp ñu jox ko mouvement action professeur Daouda Ndiaye. gis nañ ak team def ci corona bi liggéey yi ciy liggéey di jàppale ndaw ñi di leen ñaax. moom lañ tuddee boobu bi si topp ñu jox ko Demba Xarañ la suñu xarit nga xam ne moom jamono ji Gambie boo fa demee citoyen d'honneur la fa Demba Xarañ waaw dëgg yàlla ci jamono ku maman bi fi gars yi fii moom dem na Gambie xam nga wane boppam Gambie bu baax a baax a baax jamono ji moom wax dëgg yàlla danaa ko citoyen d'honneur nga ne gis naa ko ci Wally Seck di ko way nga fa mm-hmm. gis nga mm-hmm. moom lañ ko jox fa seen i tamit mm-hmm. invité si suñuy xarit ak njabootu làmb invité si ministre Matar Ba ministre Mm. boo gisee ñuy jaaban Sénégal ak Gambie ñaari réew yi benn la. Mm. te sport mënoo ko def génnee ci ñi nga xam ne ñoo jiite sport bi. Mm. invité ci tamit Bira Sène président CNC. ok ndax bi mu toogee ba léegi demagul Gambie te ñoom war nañu am ay relation ay rapport yu rafet. bien sûr profité invité waale ko ci. Mm-hmm. kan suñu xarit Fada Diène. Mm-hmm. honorable député. Mm-hmm. ñu invité ko ci. Mbaye Ngom directeur cœur de ville de Kaolack ñu invité ko ndax ku ne Kaolack ne Gambie. invité si nag suñ benn interna ñun suñu international bi ñu am. international yëpp nag suñu international lañ. waaw waaye Papis Demba waaw xam nga moom ku ne Sédhiou. waaw ne Gambie ne Gambie waaw wax dëgg ay mbokk la ñu invité ko si fas yéene ñoom ñëpp pour ñu ñëw. Ah. ñu bégalanteeg ñoom. Mhm. saafanteeg ñoom boole lamb Sénégal ak lamb Gambie. am na solo macha allah kon Jamaïcain daal a ngi noonu ak euh, Sénégal ak Gambia. léegi nag loolu leer na ci Gambie léegi fi may tëjee ak yow mooy dañuy ñëw Sénégal ak événement yi nga fiy dégg yëpp yaa ngi koy dégg rawatina euh, Gaston Mbengue ñoom Pape Dou Fall maanaam lamb yaa ngi dégg ay lamb daal boobu ba tey euh, dégg nañ sax tey ci wéw bay nekk Pape Thialis Faye taxaw na euh, juboo na ak que leen ñu tuddee Sa ak Garga pour boobu combat yooyu yëpp yaa ngi koy dégg mais ñuy wax huis clos tamit ko fa événement yooyu taxaw ba pare ñu nar ko def huis loo noo ko gisee. waaw ku amul yaay da ngay nàmp maam man loolu laa gis ndax affaire bi métti na mbëri mënuñu toog làmb di seen métier mënuñu bëre promoteur yi mënuñu toog dëgg làmb di seen métier mënuñu ko def ku ci nekk na am na looy def waaye dañu jëloon seen xaalis investir ko ci làmb ba pare waaw buñ ko bi ñu investir seen xaalis ci làmb ba pare mbir mi ñëw état ñëw teg ay mesures ñu nangul ko ko te mbaam gàtt na loolu waaye si jur gi la bokk njabootu làmb nañ leen gestu bàyyi leen xel tey suñ ñëwee ñu proposé ñu ne huis clos mooy am ah dinañ ci ànd ak ñoom waaye xañ na duñu ñu seetaan. Mm-hmm. ndax ku yeewu bay jox ko lu mu lekk. loolu am ku tëgg sa làmb da nga ko yaakaar ci dabuwaat sa xaalis même boo ci gañewul mm-hmm. làmb lu si nit ñi di gañe cent pour cent sax barewul mm-hmm. waaye li nga ci defoon nga jot ko am ñoo dimbale xam nga. participer ci réew mi ndax balaa ngaa wax euh, lan la ma sama réew defar na nga war a wax li nga defar réew kon lu mel noonu bu amee ñun dañ koy salee delluñu ci gannaaw waaye nag am na ñoo xam ne spécial ñii ay nitu làmb lañ ñëpp xam nañ leen tey làmbu mhm. am na gàtt gàtt quatre cent personnes yoo xam ne mhm. buy neex ñu ak ñoom la buy naqari ñoom la xeebaluñ kenn bisam ku tëgg làmb dañ lay wuyu ñooñu dañuy ñaan état bi solennellement mhm. nañ ñu may ñu jël ay mesures si ñooñu ñooñu ñëpp xam nañ leen ndax boo woowee du jaan jekkom wax la képp kuy amateur boo woowee mm, góorandooy mu wax la képp kuy seen amateur ñooñu ñëpp ñu boole leen ñu ñëw tas si stade bi pour xaw a taaral mbir mi ñi nga xam ne nag waa groupe baax tamit. waaw ak waa groupe baax comme ni nga ko waxee. Mhm. ñi nga xam ne nag. Mhm. tey ay kii lañu woon. Mhm. ay supporter la ñoon bu seen mbër di bëree lañ koy topp. waaw ñooñu comme micro moo am situation moo am ñu toog ci kër yi. seetaan mbir mi foofu. bàyyi amateur yëpp ñëw tas ci sànq ak lu mën a xew xeebu luñ kenn bisam. waaw dañuy dem. mbir nag du toll ba fii tamit ñu war leen a bodd war leen a xeeñ li nga xam ne dañ ko bëgg ndax ñoom tàmm nañ ci seetaan lamb stade. waaw ñooñu ñu. ñu ñu bàyyi leen ñu ñëw daal comme leen ñu bàyyi ñu ñëw ñu tas leen duñ bëri mutuñu 400 personnes boo koy xool am na si ñoo xam nag seen mbër rek mënoon leen yëkkati. kooku nag na xam ne situation moo ñëw mu toog këram dégganteeg mbërëm xool li mbërëm di def xool ko ci télé bi. Euh, Jamaïque ma laaj la benn affaire ci benn minute rek. Garga Mbossé ak Sa Thiès bu dee taxaw na boobu combat noo ko gis combat bu rëy la comba boobu ñu ñu nekkoon nañ si amoon nañ ay partenaire waaye coronavirus bi moo tax ñu dellu ginnaaw. Ah. ndax euh, wax dëgg yàlla sori woon nañ si torop sore woon nga ci combat waaw sore woon nañ ci waaye ñi nga xam ne ñoom lañ ci waroon a àndal bi corona bi ñëwee xam nga tamit comme ay gan lañ ñëw war a investir ci làmb bu ñu gis loo xam ne leeragul ñu ci dugal seen xaalis ñu sax duñu leen ko encouragé ñun nag ñi nga xam ne ñun dañ ci jot a nekk ba pare nañ si nekk daanoo ko jóg ak moom rek mhm. ndax gor moom doo nekk dara mu métti rek nga daw ñun fii Baye Mandione xoyantaan gannaaw bi ko tëggee Gambie mu am coow indiwaat nañ ko fii kenn ku ci nekk am na ñu def ak yow pour tëgg làmb ji fii ci Dakar waaye boobu léegi Covid bi moo tax ci kàttanu yàlla comme huis clos xew rek fas yéene dañ ñun tamit organiser ko ci huis clos am na solo combat bi am na favori Sa Thiès Garga Mbossé waaw làmb moom mënul ñàkk favori comme man li may wax kuy favori bi euh, favori dafa bëri ay façon waaw euh, làmb da ngay gis ñu bëri bu ñuy analyse dañuy mariner kii poudre kii <laughs> xam nga làmb favori mënul ñàkk ci làmb waaye favori cent pour cent amul ci làmb ok ndax tey làmb buy cinq point amul benn mbër ñaari mbër yi bëree nga jël cinq point yëpp jox ko kenn ki ok foo jaar da ngay séddale da nga naan kii daa ko bëre nga ñëw ne kii moo daa xeex ok kii moo gën a gaaw bëre nga ne kii moo gën a assuré bëre yaa ngi dégg bu bëre bi gaawee dafa arrangé benn mbër mi ku mu arrangé nga ñëwaat ne bu bëre bi yéexee dafa arrangé beneen mbër bi moo tax moo tax làmb favori cent pour cent amu ci waaw làmb yi fii am fii favori cent pour cent dañ leen di compter ndax bu làmb demee bay am favori cent pour cent kon combat boobu jërul ñuy taxaw bon nag ñaari mbëri bu combat bi taxawee hmm. ba nga gis ñaari mbëri génn dem liggéey hmm. kenn ku ci nekk ñu ñëw signature nga xool état de forme am foofu nag nga mun a joxee ne ah làmb ji de kii mooy favori hmm. ndax nit di nga ko mën foofu nga seen combat taxaw nga sàgganee combat bi liggéeyoo joxoo combat bi gëdd mu nekk favori sa kaw but combat bu taxawul fu ñu toll nii ku ciy wax favori da ngaa ñeme yàlla bon ñaar ñoo xam ne comme li ma lay wax ay naataangoo lañ bu ñu bëree mu neex bu ñu xeexee mu neex bis bu combat bi taxawee ñaari mbër génn ba nga gis seen état de form ñu def seen signature contrat boobu ma dékkee ne ma jamaïcain diw ak diw kan mooy favori ma ne diw mooy favori waaw eh, jam fi may jeexale ak yow ginnaaw bu ma la sante gërëm la ziar la jam kontaan ci dalal bi tey fii liggéeyu Equivox noo ko gisee ni ñuy raami nii di jéem non raamu leen da ngeen di daw <laughs> non dañuy raam waaw ñoo maa ngi ñaanal yàlla xet dolli ngeen gën a góorgóorlu <laughs> waaw Equivox nag yow kenn mënul wax làmb génne la ci da a yokk waaw yokk googu nag yàlla na gën a continuer seen liggéey rafetlu nañ ko seen bopp seen bopp ci Equivox Equivox daal jàllagul bag bi fii rek la nekk. <laughs> fii rek la doon moo tax dama bëgg nga takk say bagage <laughs> amul tàgguwaay directeur ñu jël bagage yëpp dem. Gambie <laughs> White House. waaw foo miin la. White House yii. nga la nga nekk fa nag fii ak la set. comme combat bi. la semaine prochaine waaw dafa bette. waaw semaine prochaine la nga féetee Gambie rek laaj njaboot la waa làmbu Gambie tamit ñoom nan nañ dundee huis clos. waaw ba pare tamit di fàttali ne comme. nañu boole mbir mi nañ ci boole Gambie Gambie ak Sénégal benn yenn combat yi bu affaire yi ubbee hmm. yenn combat yi nga xam ne nañ ko fay tëggi nañ ko fa yóbbu oui par exemple seen pay per view yi ñuy def ak seen code yi dina ci gën a dox ñu nekk Sénégal dinañ mën a jënd code yi ñu nekk Gambie dinañ ko mën a seetaan population hmm. Gambie stade bi 45 000 places amul amul amul journée bu mënul recevoir kon bu ñëpp taxaw di xaar arène national hmm, muy benn stade boo xam ne journée yi fi nekk ñëpp xam nañ ne àttanu ko Mhm. te combat yi dañoo yàgg. Mhm. ñenn ñi nañ des nañ décentraliser seen lamb yi comme euh, nu mu tëddee huis clos la. Mhm. tëgg sax ci raison yi. waaw mooy leen sens. waaw yaatal waaw yaatal mbir mi mbir mi avancé. Père Gaston tamit dégg nañ leen day tëgg la 4 avril. ah yàlla jàppale ko ci. amiin lépp lu mu siy séntu suñu borom defal ko ci lu kawe njortam muy. Lac de Guiers seen Sène combat bu neex la. macha allah ñoom ñaar ñamante nañ jaar nañ fi ñaari yoon bii nag. ñuy sàkku rek di ñaan. mu nekk làmb joo xam ne day neex am daanante mhm. mbëri tamit ñuy jël seen responsabilité xam ne yenn làmb yi day tax amateur rek sponsor yi di découragé ay kilifa lañ ay mag lañ mhm. promoteur jël ay millions jox leen nañ ñëw jël seen responsabilité dëggal seen bopp bu jaree ñu xeex ñu xeex bu jaree ñu bëree ñu bëree jël la am mu leer lamb da daanu yàqu ko. Hmm. su du ko daanu yàqoon ñu ci daanu bu ñu amaat combat. Hmm. daanu da cee bokk waaye waneel jom ak fulla fayda. Hmm. sooy daanu nga daanu ci ngor. suñu lay daan daan la ci ngor. loolu lañu leen di encouragé waaye yenn combat yi moom day dawloo sponsor nañ ñëw ñoom ñaar xam ne dañoo am sas. am na solo seen dafa am ci lu mu jugee Lac de dafa am ci lu jugee. am na solo nañ ñëw wane seen bopp combat bi kenn ku nekk nga samp jaaga. bëree mu neex bu ñu paree lu yàlla dogal. ku ci daan ku ci daanu da ngay bëre waat man man conseil boobu laa leen jox di nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm xewal sutura di éviter képp ku nekk ci réew mi nag di liggéey ci presse mhm. la 7 mars mhm. journée mondiale de la femme fële ca Gambie daaw fii lañ ko defee woon Sénégal mhm. ren ñu ngi jox Gambie seen wàll ci naar wi di ci éviter ñëpp incha allah waa Equivox si kaw ca kanam jaajëf jàmm kontaan ci yéen téléspectateurs yi ñaanal leen jàmm di ko sàkku ci yéen di leen wax ne ni ko waxee rek maak moom moom ah maanaam liñ naan sëb ak euh, cere àndewuñ ca cin la déedéet cin la boolewu leen wala ñeex ma ca àll ba la ñu ànde maag moom foofu la ñu ànde yaa ngi dégg dafa yàgg ma koy ñaanal jàmm di ku gëm boppam di jeune macha allah am ambition trop pour Sénégal am ko pour sénégal bi Sénégambia kon jam yàlla na nga réussir sa mission bépp doomu aadama tamit ñu ngi lay ñaanal nga réussir sa mission di nuyu xulle mi newoon ci wàllum film bi ak montage yi ak ki nga xam ne moom mooy balde tamit ci wàllum li nga xam ne nii mooy infographe bi nga xam ne moom kenn du moom maa ngi koy bégee balde rastaman xulle rastaman yàlla na Sénégal am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu maam Cheikh borom Daaru Salaam Couture moo ma jaarale fii di ko bégee di ko ñaanal jàmm bu baax a baax waaw man suma xarit Ousseynou Diop moo fi jaar maa ngi koy nuyu bu baax a baax di profité tamit di nuyu père ba sama papa ñu jàppale Fally di nuyu Mansour Ba doomam ñu ngi koy ziar sunu papa kon di nuyu Mansour Ba sunu directeur may ba borom nice and sick bay pour la saxaay xam ne moom tamit jigéen ju man góor la Babacar may ba waaw doon sa baay doon sa baay liggéeykat ah, la jàmbaar ah, la ah. mu ngi bay waaram di indi ay xam nga ay bagage doy waar yoo xam ne képp ku bëgg bu baax dem fa yow. <laughs> teneen war nga faa demal teneen. <laughs> waaw waaw def jaar may. may dinaa ñëw di ko nuyu bu baax di nuyu tamit ñi nga xam ne <laughs> ay doomu Sénégal la ñu sunu événement bi ñu jëm. ku ci ah. mel ni Modou Baye Fall sunu xarit. Mhm. waaw du sunu sponsor sa sunu xarit la borom xol xom xel xom automobile mhm. di nuyu may ba nice and sick moom lu ñu nekk ñu ngi ci. may kenn du xam nga di nuyu BMG property Khadijatou Sow White House di wax nag Babacar. waaw partenaires yi ne ci réew mi. Ah. am lu ñu bëgg a def bi mhm. produit bëgg seen produit dugg bi nañ ñëw gunge ñu ndax làmbu Gàmbi wax dëgg yàlla macha allah ni koy askan wi duggee ku ci yor produit boo bëgg a jaay tàllal nañ la loxo ñëwal ñu liggéey ci làmb ñun ay ndaw lañ ñu soutenir ndaw ñi ñu liggéey làmb Sénégal làmb Gàmbi jëm kanam. ba beneen yoon kon mbokk yi incha allah rabbi ak beneen gan.